Moustapha Niass nag li mu def moom mooy yëfu gor ndax jël na partem na du ñu présenté wu 2017 hmm. man it fa laa jëm ndax man soxlawuma réew mi dem naa ba magal soxlawuma réew mi waaye ku gis nen ne nena ngi nañu bàyyi tappale bi te bàyyi caaxaan xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar mu ne ñu fi nekk nag 2012 ba tey di wax politique tey ñu wax ci lii suba ñu song ci te mi dafa war a dem émerger Macky nga koy koy puus waaye bu Macky di puus ñii di euh, galgal di def ay euh, du mun a dem nañu ko bàyyi mu liggéey Macky gentleman la waa Tambacounda waa Kédougou yàpp nee nañu danse loo wax loolu la looy waaj a wax loolu la Macky ñu leen saf man nag du ma nekk mag boo xam ne damay toog Macky di ma jox xaalis man a na yasar bañ koo défendre nañu ko bàyyi mu liggéey xale la na ambition doo yor réew nekk def nga jóge ah, ay marché dëkk bi ko wax dee nañu ko wax te dee Macky gentleman la Macky la bu ñu kenn coupure courant bi maa ngi xëy ñuy wax lu ne naan coupure du yoon na manaan tali moo am paan Mali démb ak Mauritanie yëpp a coupé senegal li ci góorgóorlu sax Pape Dieng bi yàlla ko dimbali ba mu daw guddi gi la ko maki yee ne ko laggal na courant yi tàkk mu daw ba manaan tali kon bu ñu kenn rey bu ñu kenn fitnaal maki moo fi nekk te kenn mënu ci dara bu ñu kenn rey maa ko bañ ko taasoo ci olof mu def ko ci bambara saraxu la ñu xam ne ne Macky ngi liggéey ba tey te Macky kenn mënul tax du liggéey Macky dina émerger mooy ngay suuxat dara mu jëm ca kaw te Macky xale la bu ko kenn catu bu ñu kenn rey lii Macky Sall rek moo ko def jël ay mag ñu uuf ko Moustapha Niass Amath Dansokho Abdoulaye Bathily ñooñu ku ñu xelal nga xam ne sa gis-gis dina sori lool waaye jël xaalis di ko jox nit loolu du réglal réew dëkk bi yàqu na koo wax mu ne dëkk bi amul xaalis dëkk bi xaalis ba mu fees dell la waaye dafa am noo ko jële danga ngay xëy liggéey góorgóorlu tàmm lu yomb baaxul dee leen liggéey te liggéey kat rek waaye yaakaar ko ci ay sàmba mbayaan ak ci bureau di fagg nit ñi di laaj dugg building fu ne nga fa loolu taxul réew dem te loolu ko tax a moo tax ma ne karama la anonso koto bo koto makata ahoho atoroho koto ngi wax démb Macky ne ko Aminata Touré ku mun a liggéey la ñii nga xam ne ñooy say noon opposition bi dañoo kontaan ci li ngeen dem mu toog dinaa fexe nag ba mu dellu ndax nitu jàmm la te Macky la bëgg te moom la gëm te lii yëpp bokk na ci li ko liggéey du def lii ba mu sotti muy gedd déedéet du gedd danaa ko jëliwaat moo tax dama koy abaat on accélère bi on accélère on émerge on accélère on accélère pour émerger on accélère on accélère on émerge on accélère ngay la émerger mooy ngay saxal dara mu jëm ca kaw buñ ko accéléré rek saxal ko mu dem ca kaw kon Macky on accélère on accélère on émerge